bokk jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou gannaaw bu mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam gërëm sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul mooy feddaliwaat laxasaayam di ñaanal jëriñ yoon yi Serigne Mountakha Mbacke xalif général des Mourides sunu borom yàggal ko fi te wéral ko. sëriñ Cheikh di sant mbokk yi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi nga xam ne nii moom lay liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul di leen sant ci lu weesu waaye di leen séenu ci li nga xam ne nii moom la ñu dëgmal bu ngeen gisee jataay bii nag xam ne lenn ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Cheikhul Khadim taxaw na muy xel koom ak Daaru Salaam di ñaari barab yoo xam ne nii saa bu ñu yegsee ci waxtu wi danañ àndante fas yéene jaaju delluwaat feddali kóllëre googu nga xam ne nii amoon nañ ko ak sunu jàmbaar ja di sëriñ Saliou Mbacké yàlla ñu ko yàlla fayal incha allah bu ñu gàmmoo ba noppi ajjuma ji sës ci gàmmu gi danañu départ uti xelkom danañu départ it uti Touba Darou Salaam jataay bii nag ñu ngi toog ak jëwriñu liggéey bi di sëriñ Abdoulahat moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdul Xaadar dañuy yëkkati kàddu gi rekk jox ko ko moom mi nga xam ne mooy wax ci turu sëñ bi ngir lan wàccaayu bés yu mag yooyu nga xam ne nii moom lañ dëgmal muy Touba Daaru Salaam. ñoo ngi musli ci seytaane di sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat sëñ Touba di yeesal sunu jaayanteeg sëriñ bi ñaanal. sunu wasila eh, sunu yaakaar Cheikh Salif Mbacké sunu borom dolli ko ngërëm te dolli ko ay leer eh, di ñaanal sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou sunu borom guddal fanam may ko wér may ko jàmm eh, may ko tal ba mu yeggale naa li sëriñ Saliou yëpp ànd ko njabootu sëriñ Saliou gépp te ànd ko noonu. fàttaliku it euh, di ñaanal sëriñ Saliou Mbacke mi nga xam ne moo doonoon suñu jëwri ñun ñëpp sëriñ Saliou moom sëriñ Abdou doonoon jëwri ni sëriñ bi euh, daan jiite liggéey bi yëpp te wute ko nu nu nu mujj ko gannaaw mook sëriñ Mbaye Diop sëriñ Mass Ñing ak sëñ góorati nag ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne mënuma dem ñëpp waaye mbooleem ñi nga xam ne daan nañu ànd ak ñoom liggéey bi dañ doon suñu jéeruñ te jiituñu ñun ñëpp ñu ngi ànd maase fàttaliwu di leen ñaanal di ñaan suñu borom di leen ngërëm ak leer jéggal leen te tàbbal ajana gannaaw loolu nag euh, dañuy jot dañ fay ñëw rek ci yónneenu sëriñ bi di jot li ay kàddoom euh, di ay ndawam euh, sëriñ bi dañ fay yabal si woon boole noog doomam sëriñ Saliou Mbacké ah, ak sëñ Moustapha Diakhaté mii sunu jëwriñ ah, boole nu ak doomi sëriñ Mbaye Diop ji mu ànd ak sëñ Moussa Ndiaye ak ñi mu àndal ah, ndax waajuram lanu daan booleel ne fu mu taxaw na fa taxaw boole noog nag jëwriñu boppam yi nga xam ne ñoo nu wër. ñoom ñëpp bu nu àndee ñooy Touba Darou ndax Touba Darou Salaam sëñ bi daa tànn njabootu boppam féetale ko fa euh, kon ñun ñëpp ñëpp la fi yabal si boolema ak ñoom euh, ne na jottali ak cant goo xam ne daa bàyyi ko ci moom jëm ci mboolem koo xam ne daana wuy si Touba Darou ak fa mën a bàyyi ko ak ci nu mu mën a ak nu mën a wuysee moo xam koo xam ne daa jug ak dooleem dem liggéey wala ko ci tàbbaloon alalam wala koo xam ne dafa joxoon ay wotaam euh, mu jottali ñëpp ak cant ci liggéeyu daaw bi nga xam ne euh, amee woon na nu kawe njortam euh, lam bëggoon defal nañ ko ca te lépp pas-pas lal ko ak jëf ju sel la nee na gis na ko te Sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom la ak gisam am njariñ it gis na lépp kon mu ne nag mi ngi li ak cant ci njaboot gi yëpp Euh, bu loolu jàllee nag mu wax ne mu ngi fàttaliwaat liggéeyu ren bi euh, di ko jaarale ci jëwrin yi nga xam ne noonu wër ndax jëwrin ju ne fa mu nekk sëñ bee ko fa teg kàddoom la yor ci ndigalam lay wéyee euh, lépp lu mu wax rek sëñ bee ko ko wax loo kon nag woote boobu yëpp mi ngi koy jaarale ci ñoom ki ci jiitu di sëñ Moustapha Jaxate nii xam naa kon damay ubbi rek waaye li ci lépp sëñ Moustapha Jaxate dana ko dana ko dana ko dana ko yeggale ak uh, sëñ ndawul sëñ sëñ Saliou Diop ñi uh, sëñ Xaadim Tine uh, waaye nag ñu ñu soññaat suñu bopp rek xam le ne sunu digg ak sëriñ bi ndigal rek a fi dox ndax am murit bi mu jébbaloo joxe boppam daa wax ne jëbbal naa la sama bopp ci àddina ak ca àllaaxira loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi kon nag bu ndigal ñëwee xelam la mu war a daj mooy kàddu gam waxoon xam ni moomatut boppam saa soo xamee ne ni ndigal la jeex na dana mel ne mbaamum law bi boo xam ne law bi da ko yolomal mu fori lu mu defaree jëmmam ba bu waree sëfaat am kattan waaye kon nañ xam ni di lii ñuy def ci suñu bopp sax dañ koy waajal suñu bopp rek ngir war a jekku ndigal waaye àddina moom ndigal fi bàyyi ah, nan bàyyit xel ne nañ ñaan su sëriñ bi suñu borom bàyyi ko fi te saxal ko fi euh, tam ànd ko wér ndax ndigal lii de ñi fi ñu ngi koy jot nañ rafet njortu ne sëriñ bi nangul nañu sunu taalibe ndax euh, manaa mooy li nga xam ne moo jokkale moo nu jokkale ci sunu digg ak sëriñ bi fàttaliwaat sunu mbokk yi Saalum yooyu nga xam ne euh, waa kër sëñ Mor sëñ Malick basin waa kër sëñ Alim Benn Lo ak mboolem kili kilifa yi nga xam ne dëkk nañ ca gox booba ak dëkkandoo ya ak mbokki jullit ya ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi dëkkal foofu ca Touba Darou euh, dañ leen di fàttali rek ne euh, liggéey bi ñoom lay seenub liggéey ñoom ñoom ñoom la war te it ñoom la ko yàlla cërale ñoom la ko suñu borom sédde ndax ñoom la sëñ bi dëkkal ñoo xam ne liggéey boobu kat ñun ñi ñi jóge ci sow bi ñëpp ñëw fa dañ leen a jàppale si waaye ñoom lay seenub liggéey kon nag ñu takku nañ daan takkoo maanaam te te xam ne liggéey bi seenub liggéey euh, si Abdou njaay nag ñu ngi koy beral ak cant koo xam ne ci sëñ bi la bàyyi ko waaye nun donga yëpp ñu ngi àndandoo di ko di ko sant moom it di ko ñaanal ndax euh, maanaam liggéey bu bu dee demee nii demukaay yi am na ci solo lool te bañ tàmbali liggéey bi ba tey moo jaayante di ko ci def daanaka ñi ko ci rax bariwut mën nga ne kenn rax ko ci Euh, maanaam bu ñëwee day tëj ab liggéeyam kemt lim lim am lépp waxewoon na ma ne sax oto yi euh, maanaam lim ci daj mett na ci moom loolu waaye euh, liggéey Tuubaa Daaru Salaam bi moo tax mu wut oto yi waaye bu dul woon loolu day luy ay wata kon nag liggéey bi day yokk di màgg di yàkkaliku nu mu yàkkalikoo rek day soxla ñeneen ñu ci tàbbisi ba tax na jëwriñ yi nga xam ne ñoo fi toog kenn ko ne fa nga ne kàddu sëriñ bi nga yor ña nga dëkkal te ñor ay wata Euh, te man koo able tey roy ci bàyyi laat moom yi noonu ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo ku ci ñëw rek nga xam ne maanaam kàddu sëriñ bi la yor ku mën a joxe wata def ci gasoil nga def ko ku ko mën a tit maanaam noo ca mën a dugg rek nga dugg ci noonu waaye noo ngi cay woo ñëpp di ñaan nag suñu borom defal na ci tawfeex ci liggéey bi maanaam te te te nangul nu lépp luñ ci def ci barkeb sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah di siyaare bu baax mbooleem mbokki bi yi fi daje jiital ci siyaar bi Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam mooy sunu jëwriñ di sunu sëriñ te sëriñ bi jiital ko sunu kanam di ñaan ci dugal sunu ñaan ci biir ñaan yi nga xam moom la ñaanoon di ci dolli sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Cheikh Khady mi nga xamante ni moom it ci jëw jëwriñ yi nga xamante ni jëwriñ sëriñ bi la bokkoon ginnaaw sëriñ Mbaye Diop ñoom ñooñu sunu borom yokk seen leer te taas seen i barke te doon leen xéewal bu baax a baax baax di sof ay. ci ndigalam rek tudd tur yi ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal ñu am tawféexi sëriñ bi tudd leen ñu ñoo seenu njaboot ka ci jiitu di sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Moodu moom sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam mooy suñu jëwrin mooy ñi nga xamante ni moom la suñu jiital ci liggéey bi mbooleem kuñ ca toftal ak lu aju ci sa ginnaaw rek yaa ngi ci biir loola waaye nag woote bi moom woote jullit yëpp la woote murit yëpp la woote mën naa ne doomu aadama yëpp la njariñ la loo xamante ni kenn mënu koo ñàkk ku ca tàbbi rek jariñu ka ca topp di Moustapha Jaxate moom sëriñ Mouhamadul Xëyri moom sëriñ Amsatu di ca toftal sëriñ Fàllu Tin sañ ci Daaru Salaam di jëwriñ ci kër sëriñ Amsatu sëriñ Xaadim Tin ñu gën koo xam sëriñ Xaadim Tin moom sëriñ Góora Tin Mbàkke Bawol sëriñ Cheikh Modou Fall moom sëriñ Cheikh Mbàkke Fall moom sëriñ Modou Menda moom Cheikh Ibrahima Fall di ca toftal sëriñ Jili Ñang sëriñ Jili Ñang Touba Afia Ribo sëriñ Jiili Lo Touba Kër Ñang moom sëriñ Thierno Lo euh, sëriñ ba bo sëriñ Boubacar Ñing sëriñ Boubacar Ñing di doom sëriñ bay maas Ñing Touba Mbacké sëriñ Moustapha Guèye ñu gën koo xam ci Daaru Taniifu sëriñ Ibrahima Ngom Boqahatul Mubaraka sëriñ Ibrahima Dramé Louga ak mbooleem lu aju ci Louga gépp sëriñ Asiiru Wàdd Kawlax ak mboolem tund Kawlax yépp sëriñ Saalihu Jóob di doom ci sëriñ Mbaye jóob yàlla na yàlla doo dolli leeram ak mboolem mbuur ànd koog sëriñ Moussa Ndiaye ak mbooleem ñu aju ci ginnaaw ak mboolem tundu mbuur wépp sëriñ bi bàyyiwul kenn sëriñ Lamine Diallo ak waa Ndakaaru waa Touba Parcelles jëwriñ ja di sëriñ Moustapha Kane ak mbooleem ñu aju ci ci ñu aju ci waa Ndakaaru gépp ak sëriñ Talla benn baraag sëriñ Ablaye Fall Thiès ak mbooleem ñi aju ci tundu Thiès yépp sëriñ Cheikh Mbacke aan ak waa Anin gépp euh, Njambe sëriñ Njambe aan ak waa Mbodiène gépp sëriñ Modou Lo campement ak waa campement gépp sëriñ Cheikh Sakho ca tundu xabban ak mboolem aju ci xabban sëriñ Modou si xawnullah sëriñ Ibrahima Ale si Daaru Salaam ak njabootuk sëriñ Mour Xari si sëriñ Mourtada si Mbaabaan ak njabootuk sëriñ Malick Bassine si gépp sëriñ Abdou Samad si di jëwriñ ci liggéey bi sëriñ Alhaaji si Daarul Minan sëriñ Baara si sëriñ Moodu Mbàkke si Touba sëriñ Abdul Xaadar si sëriñ Basiiru si sëriñ Cheikh si Kura Murit sëriñ Moor si moom it Kura Murit sëriñ Moodu Lo Touba Mbenda sëriñ Muxtaar Lo Touba Mbenda sëriñ Mbay Caxaj ak waa njabootook sëriñ Ali Mbenda gépp sëriñ Baara si sëriñ Baara si ca ca Cil sëriñ Amath Seck Koupantoum sëriñ Abdou Ndaw di doom ci Baye Cheikh Ndaw mu mel ni mooy euh, euh, euh, chef du village bu dëkkub Touba Darou Salaam ñu gën koo xam ci Maodo Mouride. Alhaji Souleymane Ndaw ca xaj Alhaji Aba Abi ak waa Taïf Cekkeen gépp sëriñ Sakko ji Saw Taïf Cekk sëriñ Cheikh Sarr Touba Caareen gépp alxaaji moor jama wilaan ca kër laayeen gépp ak ku ñuy wax aji wilaan ca kër laayeen alxaaji wilaan ci turu waa ngëtu malik gépp sëriñ Ousmane Gueye ak njabootub sëriñ Habibou Gueye Baye Mamadou Dia Mamadou Diabo Dia xaafiya murit sëriñ Xiisa Ñang ca Touba Lami sëriñ Ibrahima Silla moom sëriñ Silla ca Silla Condax sëriñ Cheikh Silla Touba Cilla sëriñ Fadilu Gueye Touba Patakoor sëriñ bi nee na mi ngi woo mboolem kuy dégg sunu kàddu te xam ne liggéey bi bàyyiwut kenn bàyyiwut ñenn mu mel ne képp koo xamante ni yaa ngi ñëw te bëgg a agsi ca barab ba soo yegsee bu fekkente ne danga bokk ci mboolem ku jógee ci gox yi nga woo sëriñ Malick Samb ci 77 602 sero sero su fekkente ne da ngaa jóge jugee Saloum mbaa nga bokk ci ñi nga xamante ni sëriñ Abdou Lahad Mbacke nga bëgg a xam dal ba nga jëm na nga woo sëriñ Dame Sylla Pastef ci numéro bi 77 341 88 54 mu mel ne ñi ngi woo sëriñ Abdou Lahad mi nga xamante nii moom ay oto ñooy ñëw li ci ëpp ñu fo ca foofu moo leen di yóbbu ci ndigalul ci ci jëwrinam sëriñ um, Cheikh Mbacke Fall Cheikh Mbacke Fall moom it képp koo xamante ni soxla nga oto te tënkuwoo ci jëwrin yi nga xam ñoom lañ tudd soo ko woowee ci ak jaaxle ci 77 570 24 20 moom it dana la guider ba boole laa koo xamante ni moo lay moo lay mën a indi moo xam dalay boole jëwrin yi nga xam ne ñoom lañ tànn ba noppi wala dalay yebalal oto loolu mooy li nga xam ne moom la sëñ bi joxoon ndigal képp koo xamante ni yaa ngi fa yaa nga nekk ci biir tool ya mbaa nga jëm ca tool ya mbaa nga bëgg a ñëw soo woowee ki ñuy wax Moustapha Diakhaté ci 77 641 13 77 moom it mën naa am dana la dana la gindi ba teg la ci aw yoon ñun ñi nga xam ne ñun la ñun ñoo am tawféexi sëriñ bi santu santuñu liggéey bi sant ko mboolem jullit yëpp sant ko mboolem taalibe yëpp waaye mbooloo moo gis kuñ ca jiital ne ko taril fatiha ngir ngir ngirug julli daa munta ñàkk waaye ñëpp ko bokk mokkal waaye nag ñun ñëpp nañ maas si xam ne lanu fa yóbbu mooy liggéeyee ko na ko sëriñ bi bëggee waaye na ko sëriñ bi bëggee nag moo dëppoog na ko dongo yi na ko dongo yi bëggee kon sunu demee la la lañ lañ bëgg mooy ñu ñu ñu góob dugub ja takk ko ci ay takk sëpp ko ci jaag ya ba defee ko na ko dongo yi bëgge mu dëppoog ni ko sëriñ bi bëggee kon sëriñ bi nee na ñi ngi ñaanal sëriñ bi moom mi nga xamante nii moo tax ñuy ñuy ñaqal sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla ak yonente bi ak sëriñ Tuubaa dollee bàyyi te gën koo wéral te dolli ko tawféex te yeggale mi ak yéeneem ak yéenay boppam te ñu ànd koog moom te dañuy ca ngërëm ak ndimbal ndax ngërëm ak ndimbala ma ci barkeb Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Saliou Diop moom Serigne jóob Diop murit Saadix nekkoon jëwri Mbuur mu jox ñu kàddu gi ngir ñu wax ci turam ak ci turu waajuram jëwrinam di baay musaa Ndiaye. sëriñ Saliou nee na mi ngi jiital ci ay kàddoom di fedd feddali laxasaayam di yeesalaat njébbalam ci sëriñ Seex Mbàkke di xamal leen di leen xamal ni waay juróom foofee ko sëriñ bi tegoon moom foofee rek la fas yéenee nekk fas feddali laxasaayam ànd ak taalibe mbuur yi ànd ko ak Baye Moussa Ndiaye ak mbooleem yi aju ci mbuur gépp di soññ nag mbooleem li nga xam ne moo aju ci biir mbuur muy kuréeli daayira ya fa nekk ak mbokki jullit ya fa ne ak mbokki taalibe di leen soññ ci woote bi nga xam ni mooy wooteem ngóobum Touba Daaru Salaam di soññ tamit dëkk yi nga xam ni ñoom ñoo wër biir mbuur di ci jiital campement sëriñ Xabbaan Aan te ku nekk xam ab taxawaayam bi mu am ci liggéey bi ak Serigne Góorel Ndiaye ca Sinja di woo tamit Serigne Saliou Diouf ca Tàngiis di woo Xabbaan Serigne Seex Saaxo ak Serigne Ibba Fall di woo sëriñ Modou Badiane ca Baleen sëriñ Abdul Ahad Mbacke ca Joal di sëriñ Bay sàll ca sànjara ak mbooloo mañ àndal yëpp. sëriñ màggat fay ca Malekunda moom itam ñu ngi koy wax ni ko na soññu turu na soññu mbooleem waa Malekunda ak Kër May sa gépp ak Baye Sall Faye ca Daaru Sànd moom it ñu ngi koy soññu ngir mu soññu mbooloom ñoom ñëpp. Euh, sëriñ bi nag waxoon na ñu soññu mbooleem taalibe yëpp ñu fedd li seeni laxasaay te xam ne woote boobu kat ci la suñu pajuk aajo nekk tey ak ëllëg fas nañ yéene nag départ bi incha allah ajjuma bu ñu gàmmoo ba noppi yamoo ak le 22 ci lañ war a départ ci ci 8 kon na ñëpp ndekkee si Touba Njaareem incha allah ñu ànd dugg ci oto yi dem liggéey li sëriñ bi yàlla nañ ci làq ngërëmam jiital ci nuyoo bi di ñaanal suñu sang bu tedd bi Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou suñu borom yàggal ko suñu kanam te wéral ko te kàttanal ko bu baax a baax a baax di beralaat nag ab nuyoo akuk ñaan gu lool te kawe ci turu jëwrin yépp toog muy Serigne Touba Serigne Mountakha suñu borom yàggal ko suñu kanam te wéral ko te kàttanal ko ba naal yi mun liggéeyal ko tedd ki moom ci lu kawe suñu njort bu baax ñu ngi jël kàddu nag ci turu jëwrin yi nga xam ne ñoo toog. ak jëwrin yi nga xam ne dañoo amoon yéene ñëw xëy na gàllankoor tënk leen ñu ngi wax ci seenu tur ñoom ñëpp kon nag jëwrin yi nga xam ne ñoo toog nii ñoo jël seen kàddu tënk ko jox ma ko di ci soññ gox yee ñu jóge ngir ñu waajal bés bu tedd bi nga xam ne sëriñ bi dañu cee dimbali muy liggéeyab tool yi Xelkom yi ak tubaa Darou Salaam kon day mel ne jataay bi ñi fi toog suñu borom defal na leen tawféex ci barkeb ku tedd ki mu ñu ñi war a dem tubaa Darou Salaam kon nag jëwriñ yi toog kenn ku ci nekk fa mu jugee na ngeen xam ne bu ngeen gisee jataay bi mooy seenu soññ ngir ñu mën a waaj jëm ca tool ya incha allahu rabbi ajjuma bi ñu bu ñu gàmmoo ba noppi la le 22 ajjuma booba ca lañ war a départ kon nag jëwriñ yi toog de <clears throat> kenn ku ci nekk amoon na yéene ñi muy àndal ca gox ya ñu nekk kenn ku nekk mu seqi ab tànkam dugg ci kër yëpp kenn ku ne mu woola yëgal la ko waaye nag dali daanu daa dajut suuf waaye nag ku dégg kàddu yi rek na xam ne jëwriñ yi toog tañ bokk ak ñoom kër gi kenn ku ci nekk lii mooy sabu woote ci liggéey bi ñuy liggéey sëriñ bi muy woote Touba Darou Salaam kon nag ñu ngi ñaan yegg ci ak jàmm ak salaam te sama borom defal ñu ci tawféex defal ñu ci ngërëmal sëriñ Saaliw te lépp lu ñu fa euh, liggéey ñu ngi ñaan suñu borom def ko tawféex te def ko yiw te tuur ko def ko suñu sang bu tedd bii di Serigne Cheikh muy aw yiwam suñu borom da koy tuur ci kaw mu yàgg fi lool te ànd ko wér ndax moom de sagu yoon wi la sagu lislaam la lii mu woote te ku tedd ko daan ko def Serigne Saliou bëgg ñoo dimbali rek la waaye donga ya nga xam ne ñoo nekk ca tool ya te te liggéey ko ba mu toll fii su leen bàyyi woon nit ñoom mën nañ koo dindi ba mu ba mu jeex. nag ñu ngi koy yëgal waa njàmbur yëpp euh, ci tund njàmbur yëpp di ko yëgal seex sa fa nekk sépp muy waa Daaru Ndiaye ak waa Daaru Gaye euh, ak mbooleem doomi seex yi ak ñi sant euh, Samb. waa kami déeg ñun ñëpp rek sëriñ sang sa sépp ñu ngi di ko yëgal nag ba biir région Louga di ko yëgal sang su baax si nekk ci biir Louga muy sëriñ Mahamad ibn Cheikh Mahamad Moutala ak ñi mbokkal kër Seexul Xadim ñëpp ci ndigalul sëriñ Cheikh Saliou maa ngi soññ mbooleem gox yi waa Touba Koungheul jëwrin jadi xaar a wóor bu xabbaan kër njoogu jëwrin jadi jaal fay jëf rek a bu ndakaaru jëwrin jadi Baye Fall Jéey jëf rek a wóor bu Touba Refène jëwrin jadi Cheikh Moussa Diouf jëf rek a wóor bu Bambey Guy Njool jëwrin jadi Ousseynou Badiane ñoom ñëpp ñu ñoo ngi ñaan daal ndam luñ fa daa am rek yàlla nañ fa am lu ko raw bu kenn manqué ñu ngi ci woo góor ak jigéen wax ni nag départ bi le 22 lay doon tombeek bu ñu euh, gàmmoo ba ca àjjuma ca ca njëkk kon ñoo ngi woo bu kenn manqué góor ak jigéen na ñëpp ñëw